ñoo euh, wax euh, ci euh, mbir mi nga xamante ni moo xewee ca nooto guy jama démb ba tey ñu ngi koy wax ci antenne bi nooto ma nga ca département bu Tivaouane benn waxambaane moo sotti papam essence taal ko baa ja mujj naa ñàkk bakkanam démb moom mi ko mi ñu ne moo ko def daf ko def ba pare daw waaye gis nañu ko ba teg ko loxo Cheikh Anta Diop Cheikh Diop mi nga xamante ne doomam di Fallou Diop moom moo ko sotti woon essence taal ko ñu yóbbu woon ko ci hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Thiès ñàkk na bakkanam kii nga xamante ne moom mooy doomam di Fallou Diop moom moo ko fekkoon mu toog ci salon bi mu sotti ko essence taal ko daw ba mu ko defee nag gendarmerie di ko wër waaye jamono yi waa gendarmerie bu Tiwaawoon wër nañu ko ba teg ko loxo ñu ngi ko fekk nag tey ba njaay liñ ci mën a jàpp jamono yi mi ngi garde à vue ci waxtu yi di ñëw daañu ko defeere li nga xamante ne jot nañu ko ci ay xibaar kii di Fallou Diop li tax mu def ñaawteef bi nee nag waajuram bu góor da teg nattu di bunduxataal yaayam rax ci doon li mu dem takkab ñaareel loole moom moo ko metti ba tax mu sotti essence papaam daa ko taal RFM Thiès Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar caaroy gaar di yéeglu ne mer nañu bay futt ci jamono ji ndax mënatuñu génn seen euh, gox googule dem feneen. la ko waral nag yoon ya du daan jaar daal ca raay ya euh, dañ ko tëj ndax liggéey bi ñu sumb jëm ci train express euh, régional bi loolaa tax mënatuñu dem ñu ne sax mënatuñu dem ba euh, mënatuñu dem fajo ji ndax hôpital bi mu nga ci geneen wet ba te jaar romb foofu dem dafa mënatu la nekk ñu ne ci jamono ji daal ay passerelle lanu bëgg su ko defee ñuy mën di dem ak dikk ni ñëpp kenn ci ñoom Libas Diagne ay kàddu yu mu denk ndongo ko ëpp na huit mois ñu engagé woon ay négociations ak ñi yor projet terre bi ak autorité administrative yi parce que caaro yi projet bi dafa ñëw xaaj ko ci digg bi donc bàyyi benn côté bi infrastructure yi nga xam ne ñi moom lañ soxla beneen côté bi ay dëkkuwaay yu am solo donc ñi ñi mënuñoon accepter loolu ñu jóg engagé combat boobu pour au moins ñu defaral ñu ay passerelle pour permettre nit ñi ñu mën a continuer élèves yi dem ci école yi ñu mën a accéder ci hôpitaux yi ak ci mel ni marché yi ak yooyu bu ba am ay accord ak euh, APIX devant le ñu tëj benn buntu tànk réaliser wuñ passerelle yi malheureusement semaine passée dañu xëy fajar ñu ñëw sous escorte la gendarmerie ñu ñëw tëj bunt yi donc les gens ont voulu réagir mais heureusement chef de village bi ak leader yi fi nekk calmé nañ ñu ñun gis nañu escalier yi ñu defar ci pont bi d'ailleurs sax boobu ci proposition bu ñu defoon la ak euh, directeur général APEX proposé ko ñu modifier pont boobu def ay rampe escalier yoo xam ni dina permettre nit ñu mën a jéggi mais bu ñu xamee ni nii lañ koy defee vraiment duñ def proposition boobu parce que lii benn sécurité sur que dëkk bi dinañ naqaree tey après ñi ñi caaro yi ñëpp ñu ngi ci tension koo ci wax problème mooy bunt bi bu ñu ko tëjee fan la ñu jëm président la république moom engagé wu woon na kenn ni caaro yi gaar nañ fi teg passerelle supplémentaire donc passerelle boobu ba léegi tegaguñu ko ñu commencé di tëj bunt yi situation la boo xam ni caaro yi gaar duñ ko accepté mu nekkoon euh, Libaas Diagne euh, ci kàdduk euh, askanuk yi Gaar mi bëgg ñu defar leen ay passerelle ngir ñuy mën di génn di dugg si seen gox koogule wàllu mbas mi fii ci Sénégal Sénégal romb nañu ci jamono ji lu toll ci ñetti junika coronavirus junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit la ñu ne euh, wér nañu ci jàngaro ji junni ak juróomi téeméer ak euh, juróom fukk juróom ñoom la ñu nekk di faj ba léegi suñu réew nag di Sénégal fanweeri nit ak juróom ñàkk nañu seen bakkan ci feebar bi le état d'urgence gi Sénégal nekke sax tax ba kenn mënatul dem kenn mënatul dikk euh, ca dugu moom ba tey am na ñu yoot bët frontière ya daal di dugg si loolaa tax gornooru dëkk ba ni daal bu ñu amoon ay drone di ay xeetu caméra yooyu naaw ngir daana gën a tax ñu gën a mën a wattu frontière ya euh, drone yi mu ne gouverneur ba daal ne lu mën a nekk la Kédougou nag ba fii amul woon benn kaaw Covid 19 waaye am na ku fa ñëw andil leen feebar bi euh, Burkina Faso la jógee doon romb dëkk ba ngir dem ca Kolda Sayer Ndaw gouverneur Kédougou ñu teewlu kook Alaaji Ndate Diop loolu mënta nekk parce que nit ñi jéem nañ ba tey ah bi ñu déggee ni Sénégal ñu ngi faj euh, day wér am na ay cas guéri yi ñu fi wér ñu bëri jéem nañoo dugg si mais li ñu refoulé ci nit ñun kenn mën laax nu mu toll parce que dispositif bi ñu teg nag en place moo taxoon ñooñu ñëpp ñu mën ceer gaaw teg suñu loxo génn waat leen fu ñu dellu fu ñu jóge woon loolu moom mu taxaw nañ ci bu baax c'est vrai que frontière nag xari naa surveillé ba tax na sax bu lii weesoo ñun li ñu nar a mooy ñu wutal ñu ay dispositif de surveillance par drone nga xam ne danañ mën a taxaw ci benn bërëb naawal drone bi muy xool fan la frontière bi toll que loolu rek moo ñu ci mën a génne ndax frontière bi boo xamante ni topp ko ak tànk wala ak oto dana yi nga xam ne fan war a jaar ay forêt la ay àll ni oto mënu fa jaar ay moto rek moto yëpp moo fa mën a jaar mais daal teg nañ fa dispositif boo xamante ni gëm nañ nit mënu ko romb wala boo ko rombee it doo sori te daguñu la loxo loolu lu la te buñ la tegee loxo ñun ñaare wax ji du bari lay delloo fa ko jóge woon su ko defee bu dee Sénégal nga nag ñu soog la mettre en observation xool la waaye bu dee koo xamante ni bitim réew nga dëkk moom dañ lay delloo fa ko jógee parce que c'est vrai que dañu nekk ci cadre sous-régional mais boo violé suñuy texte yow mm-hmm. nangu doxee ñu jëfee li ñu tëral nga violé suñuy texte mun ñu am ci yow yoon man de dañ lay daal delloowaat fa nga jógee te plusieurs fois delloo nañu ay nit fa ñu jógee woon pour moytu ñu indi fee feebar mu nekkoon Sayer Ndao di gouverneur bu Kédougou daa ngeen dégg waxtaan googu mu seq ak ndaje Ndate Diop ci njeexitalu xibaar yi ma fàttali ne ma mooy ganuk euh, RFM euh, ni ki tey jii séddaleep euh, jiw gi rawatina ci yenn gox yi nga xamante ni ña nga ca biir àll ba fële ca Casamance centre dialogue humanitaire daal dina jox communauté ya fa nekk ay kits d'hygiène maanaam daal yoo xamante ni daañu ko mën a jëfandikoo ngir aar seen bopp ci feebar bi lu toll ci fukk ak ñeenti dëkk. yu nekk ci biir commune bu Djibi jon Sindia ak yeneen ñoom la ñu jox mbir moomu le ONG Cambérène Kafou moom moo ko moom moo ko def coordonnateur ba di Dame be ñu teewlu ko Lamine Ba. que ñoom ñëpp ñi nga xam ne choisir nañ leen say village daal ñu ngi si ñu naan euh, si frontière bi lañ nekk maanaam entre diggante Sénégal ak Gambie lañ nekk euh, te ay zones yu reculé te xam nañ ni tey nit ñi fu ñu jaar du ñu jaar si yoon officiel dañu jaar si yoon yi nga xam ne pratiquement ay piste lay doon te population ñoom ñoo leen xam ñoo fa donc suñu leen doté de moyens de matériel yaakaar naa dina mën a permettre ñu ñu tey cette pandémie la loolu Euh, de Oulampane de la commune de Djibidione mais également la commune de Suède dafa am constat bu ñu def nii pratiquement aide bi nga xam ni daanaka dañ koy def dafa yem rek si lu ñu naan les grandes communes maanaam communes yi mag yi ñi gëm ni tey population yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk tey si le long de la frontière ñoom tamit ay sénégalais lañu comme ñun dañu mérité tey ñu accompagner leen loolu moo gën a motiver tey ñun ñu ñëw ànd ak ñoom pour participer à pour permettre leen ñu mën a am lépp li nga xam ne mooy jumtukaay pour ñu xeex euh, jàngoro bi pour mu jóge donc loolu moo waral tey ñu choisir dëkk yi nga xam ne yaakaar nañ ni xëy na nit ñi ñemewuñ fa dem pour dem fa wan leen message ni tey jàmm tey mi ngi dellu si Casamance mais également ñooñu ay sénégal lañu comme ñun ñëpp kon war nañ leen mën a jàppale donc loolu moo tax tey HD accepté en tout cas accompagner ñu pour village yëpp ñi nga xam ñi ngi si long de la frontière ñu mun leen jàppale pour ñu mën a xeex jàngoro bi mu mën fi jóge. rajo askan wi fukki simili gannaaw juróom-ñetti waxtu ni ngeen ko xamee njàng mi dana dooraat ñaari fan ci weeru juin rawatina élèves yi nga xamante ni dañoo ci classe d'examen waaye ba fii nag moom éducation physique moom euh, ne ñu daal du ci bokk loolaa tax professeur EPS yëkkati seen kàddu sàkku ci ministre bi ministre bi ngàlloo wàllum njàng mi fii ci Sénégal mu xolaat dogal gu ne mel Lamine Ba. ñii di jàngale éducation physique ànduñu benn yoon ak dogal bi nga xam ne ministre de l'éducation nationale jël na ko seppi seeni discipline ci njàngale bi nga xam ne war na door ci ñaari fan ci weeru juin bu ñu dëgmal ñoom jàpp ne moo toogal éducation physique et sportive ci bureau national bu SAEMS. éducation physique euh, dañ ko ber ñu ne éducation physique du bokk euh, bi le 2 juin ñu jàpp ne loolu vraiment buñ ko defee injustice bu mag la ñun ñu jàpp ne loolu loolu humiliation bu mag la te juumte la. moom jàpp na ne dogal yi nga xam ne jël nañ ko ngir xeex bépp contamination coronavirus ci biir école yi mën nañ koo teg éducation physique et sportive. parce que protocole bi mooy euh, classe bu nekk dañ koy diviser en en groupe te groupe yooyu mënul weesu euh, ñaari fukk élèves. mais professeur d'éducation physique bu jël ñaari fukk élève yóbbu ko ci terrain bu nga xam ne terrain football mu def foofu kuuram éducation physique jégante sa du fa am élève bu tissooli euh, tissooli bi du dem fenn parce que ngelaw bi da koy sànni ci suuf te dara du fi xew ñi nga xam ne ñoo ngi bokk syndicat ak sawur seen bëgg nag ministre de l'éducation nationale dellu siwaat ci dogal boobee nga xam ne jël na ko jàpp nañu ne peut-être ministre bi dafa juum war na mun a nangu dellu siwaat ci ginnaaw pour wane ne juum na que éducation physique mun nañ ko def ci période euh, coronavirus bi. ñi di jàngale éducation physique bëgg nañu bind bataaxal jagleel ko kii di ministre bi ak seen secrétariat général national syndicat ngir xamal leen ne am nañu benn yoon ak dogal bi ñu bëgg nag ñu gën ko waxtaanee ngir ñu am ci pexe Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. dem ca Kaffrine euh, démb la woon Korité waaye ña fay jaay yàpp di boucher ya dañoo bëggoon a rek def marché. rey nag yu bari ngir jaay ko ci korité gi waaye ci mu jëntal gi daal ñoom ñëpp a lambale ndax client bu ñëw ne leen ñaata Omar Ndiaye jaaykatu ndawal yi atum ren ak korite gi seen jiba feesegu ndax nag yi ñu jotoon a rey ndawal la mu ngi fene gàññi góor gi faal ndax ndax ma ren man liggéey naa ñetti nag yoo xam ne jaay ma ci dara dara dara yàpp yi mu ngi bëri nañ bëri nañ du wax dëgg yàlla fi yàlla yi fi dara grand doxul dara feebar bi ak feebar yi bëri na bëy yomb na yi xam nga loolu mooy suñu problème li ci gën a doy waar mooy ñu bëri ci buse yi dañoo demoon lebi ay nag yaakaar ne bu ci jaayee dañ ci mën a am as tuut lu ñu yóbbu kër ga waaye fi mu nekk nii de safaan ba lañ ca am Jaraaf Fall si yéeme na lool sax metti na lool vraiment xamuñ fi ñu koy waxee essant yi nii parce que dañoo jël alali jàmbur euh, valeur ay millions lañ jël nag yoo xam ne ay nagu six cent ay nagu sept cent nagu cinq cent cinquante mille dugal ko ci marché bi mais pour nga jaay sax xëy jaay cinquante mille kon li may waxee yow nii xëyuma jaay lu mat soixante dix mille ci xam ne maa ngi ko jëlee ci ay six cent nangam mille métti na lool yéeme na lool ren moom vraiment affaire bi moom nu mu ñu dalee moom moom kenn xamut fi ñu koy waxee waxee vraiment métti na lool sax waaw. daanaka ngoon gi lañ doon carte di xaar restaurant yi mais restaurant yi ñu gisatuñ ci kenn waaw restaurant yi ak mayge yi ñoo doon jënd yàpp yi daanaka ñoo doon peese ay gros yi vraiment mais affaire bi moom ñun moom buy heure bi di jot rek. waaw policiers yi ñëw nañu eh, na leen fexe faxo ñi pour ñu tëj laal waaw. ren nag tombéeg jamonoy koor geek korite geeg corona bi tarloo ci jaaykatu ndawal yi moo tax fi nekk ñu bëri ci ñoom jotoon a lépp ay nag li leen yéem mooy fan lañu koy fayee. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye euh, jërëjëf korité bi ren daanaka melun euh, euh, yeneen korité yi ndaxte bu ñu julli waan ba noppi ba añ ba suur dañ doon faral di gis xale yi ci mbedd mi ñuy doxantoo koy ñaan ndewinal loolee nag amul ren donte sax am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni jéem nañu ko def Omar Mbow daje na ñoom fële ca Mamel. léegi foo leen mbas bi fi nekk bees soppi dundin ak doxalin yii yëpp loole nag terewul ndaw yu dekkee ca mamel di wër ci mbedd yi ngir laaj ndewanel Mamadou ja ak ñi mu àndal xam lool def ci seen bopp bu baax ne ay risque la ñuy def nii. Eh, ñu ngi protégé wu corona bi. bon moi avant de sortir j'ai pris un gel mon gel là tout suite je l'ai oublié à la maison j'ai pris un masque et j'allais acheter des gants et je me mets à en mettre des gants. njaaxentelu weer bu tedd bi ab fête bu rëy la doon àndal bi pa nag mbas mi di coronavirus moo ngi fii di def ak di dogal lu ko neex di ñawlu Ibrahima Seck. La <laughs> korité corona wala korité maison lu ne lañ koy woowee fii mu doon lu njëkk loo xam ne ala kulli dina yàq feet bi. la moo tax solo parce que damay génn ak samay xarit kese te dama kaa solo kese pour photo. mu ngoog ay xale yoo nga xamante ni daal mbas mi tax na ba mënuñu naan ñaani déwénal nun ko euh, daa defee fukki simili ak